kon nag léegi balaa ñuy jox saa si dañuy jox euh, soxna Amiba mu yëkkati moom it tuuti ci alquran su paree it waxoon nañ soxna Roqe bi Ñas mu yëkkati moom it ci alquran euh, su paree it ustaas yi ku mel ni ustaas euh, Fatimata Konaate tànnoon nañ ko pour mu yëkkati kàddu xaw ma nag dana jëlam leen ak ustaas bu kër Birame Kodé bi moom it dana ci yëkkati kàddu am na yenn ustaas yoo xam ne ni programme woon nañ leen waaye gisu ko mu leen woon. comme ne oustaz Ndiémé joxe woon na kàttan waaye gisaguma ko oustaz Saalum Diané ne dafay ñëw ba ci yoon oo ko ne waaye juróom ki nga xam ne moo mag seen famille moo génn àddina mu daal la wàññeeku moo dëkk Saalum euh, moo dëkk Kaffrine booy wàcc sax yoonu Ngandoo maanaam foofu la dëkkee kon oustaz ay euh, ay sunu ba dégg sa say euh, ami ba ñu jox la kàddu gi nga yëkkati li nga war a والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما بناها والأرض ما داها والنفس ما سواها فألهمها وتقواها قد من سكتها وقد من دساها وكسب سمور تقواها إذ وحاص فقال لهم رسول الله ناقة لا يسقياها فتسرها قربها فدمدمها لم تكن بسمع فسواها فلا يقف فوقها ñu ngi sant yàlla di gërëm soxna si di ko ñaanal yàlla muy soxna Sayda ndax li mu dugal ci Sénégal am na njëriñ am na solo sant bu gërëm ko rek moom lañ ko war a defal ndax benn sama daara man am na ñu xam ne bi ñuy commencé yàlla wujj na xam na xam na salaatu faatiha xam na ko bi tey yaa bi laay te defe naa ne ku bëgg a julli te mënoo salaatu faatiha mënoo tey yaa bi laay si jàpp kon si julli baax il faut nga mën a taaye soo paree nga julli ci yonent bi di nga julli si sa julli doo baax fii ne macha allah bari na ñu xam ne mokkal nañ tey yaa bi mokkal nañ salaatu faatiha dugg nañ ci yeneen yoon yi sax ba bëgg a ñaan kon loolu taxawaay moo fi gën a kenn ku nekk ci ñoom it ñu ngi góorgóorlu fas ba kenn ku nekk naan daal ñu ngi ci góorgóorlu te gis buñ ko mbaax moo tax ñu defe naa ñu ngi lay ñaanal yàlla fan ak net ba li nga sumb yàlla yeggale ko fa nga bëgg mu jëm ba jox la ci lu gën a koy seen borom nga xam ne yaa ngi dem bëgg la jox ndax jigéen ndax daal bu sa jàng mag magam jigéen daal koo bu sa jàng jur ne toog naa ba samay sëñ bi jàng taxaw ma lu wàññi léegi def nga ay daara ba fi mu ne jigéen ñi ñëpp ñu def ay kàngam nekk di def ay daara di def ay jàng euh, bu leen sëñ si doon defar seen seen seen jàng ak seen ñu ko kon la ñu ci sant yàlla di ñaan bu baax a baax wasalaamaaleykum. ma jàngal leen ñaari saar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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا احد انا اهديناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شانئك هو التبديل baax na léegi yaasal mi maa ngi koy gërëm léegi ñun suñu dëkk bi mu ñëw boobu dem na ba nga xam ne amul kenn koo xam ne man man man ñu bëri xam ne ñu ñoo wér daal xam ne ñu ñoo ñaanee te ne xamul luy wirda xamul luy ñaari xamul lu yàq sa njàpp xamul lu yàq sa cangaay xamul lu ko lu ko yàq man allahumma salli ala sayyidina muhammad il faati lima uxlaqa wal xaatimi lima sabaqa naasiri xaq bil xaq wal ila wa al subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ma bëgg ñëw rek ndaje bi yaasal ma lépp loo xam ne dañu xoote na ko rek moom ma ne danaa dem métti na lool waaye nag lii bis bii rek jaral na ma ko fépp fu ñu xootee rek danaa dem li ma bëgg si ñoom nag xamaguma ko li ma bëgg si ñoom yàlla ñu ko yàlla defal yàlla may ñu barke yàlla may ko njub may ko fan may ko fan wa gudd waxaan ak wét yàlla may ñu barke may ñu wasak lépp lum soxla yàlla na ko yàlla jàppandal ñu ni lépp lu mu soxla yàlla nañu yàlla jàppandal si moom yàlla guddal fanam dama leen yàgg a bëgg si suma xol bi man si suma xol bi laa ko teg su ma doon góor moo maa yar waaye duuma góor jigéen laa waaye ba tey it am naa ci si moom. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin yawmi diin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف تنصل الملائكة وروا فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر sadaqalaahul aziim jërëjëf bàjjen ñu ngi lay sant di la gërëm ñun waa Koutiéne ñu ngi ko tibbee ci suñ mag suñ sëriñ suñ muqaddam ajaratu sëtu Kombe Njaay moo ma fi yebal moo ma délégué pour ma tari ma nga nee moom nag mooy suñ magam daara ñu ngi koy gërëm gannaaw buñ la gërëmee di ko sant ndax moo ñuy encouragé ci njàng mi di ñu ci ñaax fuñ toll mi ngi ñuy jiital di ñuy daara ji ñuy góorgóorlu ustaas yi di ñu dimbali te lool ñu ngi koy gërëmee yàlla ak yonentam ba ak bàjjen salma mii tay ndax lii dañ koo barkelu ci bés bi muy suma bisab maam aminatu yal na ko yàlla jotal yoolab alquran moo ak njabootam ak suñ ma fekk seen gannaaw yal na leen yàlla jotalee wal tax moo ci ne jigéen matul te rawatina bu njëkk ni jàng mel léegi melu ko woon te lii bu ko defutoon ñun xamuñoon kàttanam xamoon nañ kersaak def ko te lii mi ngi ñu cee jàppale moom it yal na ko yàlla fay yàggal ko ci suñ kanam mu di ñu gunge ba yàlla xàggale ñu seen bëgg a xàgg daara ji nag ñu ko jàpp bu baax di ci góorgóorlu incha allah rabbi yal nañu ci yàlla jàppale bañ àgg fañ bëgg a àgg. boobu moo ne bisimilah rahmaani bu ma paree xul xonsu bi rabbi naas moo ci war a topp ko woon te laa ko xàmmee benn saaru mën a toppalante ak moroom ko woon fenn ci laa ko xàmmee mënoon nañoo sëgg julli mënoon nañoo def lu nekk ci lañ xàmmee nan la ñuy rukkooxee ci lañ xàmmee nan la ñuy siggee taxaw ci lañ xàmmee li ñuy wax boo sëgg ngëbee suufam. ci lañ xàmmee liñ xàmmee ci ngëpp boo siggee li ngay war a boo suppee sa jibi li ngay war a wax soo toogee li ngay war a wax ci lañ xàmmee tasab yooyu yëpp xàmmee ko woon te léegi lépp lépp suñu ustaas yi leeral nañu ko bañ xàmmee ko ndax bu ma unaxaan subhaanallaahi walhamdulilah dama ko daan boole rek jaxase teg fii ne bu ma paree war naa xam ne ma ci teg te xamuma ko woon ndax su ma ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah wax da wala sarika lahu lahu mulku lahu hamdu xamuma ko woon su ma koo dégg sax maa koy doog a dégg rek ci bañ commencé njàng dama ba bare ci laay moom laay teg defar ba mu baax lépp mu waxal ne ko suñu rukkoo suñu gannaaw yi nga daan si yor sa bopp bi ba sa jëmbi di laal suuf te léegi aussi gi nañu da ngaa war a sa gannaaw gi ba mu toll nii lépp ràññi la leen ko bala ngaa jàpp ni ngay duyee sa ndox mi ndox mi nga war a tànk jàppee ko ndox mi nga war a ni nga ko war a jàppee lépp xamul lenn lenn la ci xam ne ustaas yi waxaluñu ko bañ ràññee ko fi kenn ku ne mën naa yóbbu sa bopp fi mu ne jàngal sa bopp julli sa bopp sa néebee bu mel ni ngaa jullee ca julleekaay bu mag ba lépp ustaas yi ràññee leen nañu ko te xamee wuñ ko woon de xamuñ ci ne bisimilah wuñ woon dara lépp lépp lépp yu ñuy jàng fi mu ne ustaas yi ràññee leen nañu ko xam nañ ko bu dikkaat bay taxaw ne ñoom ni ngay di sango kenn ku ne wax na ngay la ma ca xamal la ma ca xamul bu xal ni dalee xal ne ci ndox ma nañ koy tànqee fañ koy tànqee nañ koy taaje fañ koy raxasoo fa koy xobbee ko koy sangoo lépp lépp lépp ba ba mu lenn lu ñu ci xumb ndaw yi ñëpp mboolem suñ jànq ji may xamatu ci kenn koo ci xam ne mën naa la sa yaay taxaw warbati ko sang la noonu lañ jëbalee sa jëkkër yaa taxaw su mën a sang sa bopp ba mat dañ leen di taxawal ci géew bi yëpp ku nekk wax la nga xam ni ñoom oustaz ñu wax la li nga nam demee yëpp nga wëlbati ko defaat ko màgg lépp ràññee nañ ko ci bàjj ni gërëm ñu ngi sant gannaaw buñ jullee ci yàlla buñ santee yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi sant bu baax di gërëm bu baax fa ma koy jox joxewu ma ko kenn fekkee yàlla rek ko ko fekke ndax guddi la ma ko jox de ak na ma ko joxee ak na ma ko xamee ak na ma ko gisee kenn ku ne nag ngay bëgg ci yàllaa ko xam sëriñ rek laa bëggoon te jox na ma ko ba rafet sant naa ci yàlla julli ci yonent bi sant naa ci bu baax keroog ba xalifa Babacar nelawee ñu walbati ko ne nañ xeesal ma ne man de duma xeesal may téye suma wér bi ku ne wax ku ne ma cuq cuq ma tëdd ma guddi yàlla jox ma sama sëriñ soo ma ko joxee moom rek ko ko xam bu may diyee moom ay suul su may dund ëllëg mu may dëkk ci moom laay dëkk dem na ko yàlla def ñu nëpp ñu te muy yéex waaw sant nañ bàjjen gërëm nañ ba ñu jàngal laa ne man suñu ustaas yi dëkk yi laa tànn ci njàngam yàlla def ñu sawrati lool ñoom ñett ñoom juróomi ustaas fa ne ñett fa ne ñoo ñuy jàngal sa àjjuma ji jot kenn xay àjjuma ji jot kenn xay noonu la koy jàngalee mat nañ téeméeri nit nañ ko ñu suñu daara ji dégg nañ boobu daara ji bu ñu ko nee tool sax dafay tax ba doo mën a jàng dara ndaw wax di bëri ndax mbooloo xam jigéen fu ñu daje tool fay bëri waaye fas nañ ci seen doom taxaw ci añuy leeral la lu nekk kuñ pare laaj leen lépp mu firi ko nga dégg ñu xam xàmme ràññe lépp lañ ko mënta wax fii waaye suñ ko mën a wax fii ba lañ toogoon ci dëkk bi ku ci nekk lañ ko xamee danga ko nekk kon ñu ngi sant yàlla ñu ngi julli ci ñu ngi lay ñaanal yal na yàlla yokk sa fan yàlla may la wér yal na yàlla jàppale jàppale sama sëriñ Ahmed Khalifa Niass yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla nañu yàgg a jiite te kaw xaddina ba xalaaxir ñu ngi gërëm si naan yi nag mooma ci jàppale bu dëggat jigéen rek laa ñi mi huma waaye ne li ma xas doog dugg naa ci rek di ku ma doon sotti bal di ma rëy Ahmed Khalifa Niass su ma ko baxee maa jiitu ci suuf mu teg tànkam ci sama ma ko bax it damay xànd a ba lu ma a ko te dinaa ko xattan su ma ko xattan dinaa xànd maa ngi sant maa gërëm fu ma toll si naax ak mooy puus di ba max ak moom dong laa daan taxandat ci jiw loxo te ne yàllaa ngi def maa ngi xam ñoo xam ne su ma ne man kenn dana na ñaar te dinaa xam ñett te dinaa xam ñett te yàlla dina ko dolli moom gën a kon maa ngi gent guy ñooy nayoo ñoom daal ñu ne gannaaw bu ñu santee yàlla ba pare ñu ngi sant Saydatu Selma Ñas ndax bari na si ñoo xam ne nii xamuñ xoon faatiha bu si xamuñ xoon ne ku ci xam ku ci xamul faatiha bu si sa julli du wér te fi ne xam nañ faatiha bu si yàlla bu fekkente ne xam nañ faatiha bu si yàlla te xamuñ beneen saar bu si it seen julli dana wér te fi na xam nañ fatiha bu sell xam benen sar bu sell ba mën xam ayatu kursi yu ñu non ma jàng ci ayatu kursi yu sax ngeen deggu ko muy bismillahir rahmanir rahim allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum laa taqusuhu sinnatun wala nawmun lahu ما في السماوات وما في الأرض من صلى man sallazi yasfau yandahu ila bi isnihi yalamu maa wa maa xalfahum wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi ilaa bi ma saa wasi'a sama waati wal ardi wala yuuduhu hissuhuma wa huwal aliyul hasim loolu ñu ngi ko cee ràññee ràññee ñun waa daara yi ñun ñëpp ñu ngi ko cee ràññee da ci ràññee salaatu faatiya ngee sant yàlla gannaaw bu ñu sant yàlla ñu ngee sant saydatu Selma Ñas ñu ngee sant yàlla ba mu bëri asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ku ci nekk ñu fekk nañ la fa nga toog nuyu la nuyu bu sell nuyu jullit nuyu lislaam mooy asalaamualeykum wa rahmatullah bàjjan ñun amatuñ lu ñuy wax sax ndax ñun yaakaar naa ne ñun euh, jigéen ñi ñun ay gumbo lañu woon mais nag tey ba nga ñépp ba ku ci nekk yaa ngi xool yóbbu nga ñu it ci yàlla ndax li ñëpp wax rekk loolu la kenn mënu doon ci faatiya bu sell ndax maa ngi nettali léegi benn jigéen buy jàng kero bañ eggee ca moom bañ ña ko waxal faatiya daf ne euh, naka la ko waxeeti sax ablaay sa ablaay sa ablaay faatiya doom ji ne ko yaay ba ngay julli ba tey yow mënuloo wax faatiya bu sell ba tey te ngay julli yow man de xawma nooy waaye yaakaar naa ne bañ suñu ustaas bañ yore xale bu sawar xale bu xam la muy wax bam ñu jàppee yaakaar naa ne ku ci nekk sooy julli xam nga la ngay jullee sama classe gi da nga doon tilim rek xëy aw yoon dem benn wërsëg du ñëw léegi da ngay xëy boo tilimul sax war nga nga setal sa yaram nga xëy dem jànq sa ndox setal sa yaram ba mu set loo yootu nga jot ko te loolu yépp xamuñ ko woon mais yaa ko indi ak sa mbaax ak ak buggu itam sa askan muy jigéen nga jàppale ñu jàppale boo xam ne bu amul àpp la a ah, ñépp rek liñ ci wax moo ci nekk ku ci nekk rek di nga barkelu ma commencé ko ci faatiya bi bismillaahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi diin iyaaka nahabudu wa iyaaka nastain إدنا صراط المستقيم صراط الذين ألمت عليهم خير المخلوق عليهم ولا آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أنص برب الناس مالك ناس إلهي ناس من شر واس واس خناس الذي واس في صدور ناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أنص برب فلخ من شر ما خلخ ومن شر خاسق إساو خبر wa min sharri nafasaati fil uqadi wa min isaa waqaba asil isaa hasada bismillaahi rahmaani rahiim qul wallaahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam ahad bàjjan wax dëgg yàlla ñun mënuñ lay fay bu fekkoon ne dañuy jàng dañuy bugg di tari rek ndax ku ci nekkit xam nga loo jullee ndax faatiya bu sell boo ko xamee boo ci tegee benn saar sax da nga dem li euh, kiy wax satu kombe wax dëgg la xam nañ léegi boo sëggee li ngay wax boo siggee li ngay wax booy taayee li ngay wax booy sëlmal li ngay wax loolu yëpp xamuñ ko woon te léegi xam nañ ko man bu ma pare war a dama naan asalaamaaleykum wa rahmatullah aw sama yoon dem waaye na wax dëgg yàlla léegi moom fi mu ne nii macha allah damay julli normal ndax julli boo ko mënuloon xamuloo farata ba xamuloo sunna ba doo ci sawar sax doo ci sawar man bu ma julliwaan suba bala may jullee ci ca ëllëg sa la ndax duma xam lu may wax comme xaw ma lu may wax nag du ma ci sawar waaye léegi moom damay yàkkamti fi ne ni ñaari kaala laa boole damay yàkkamti bër seen ma julli toppalante ko ba ba may tëri nag ma julli ndax nañ farataal itam julli gexe ndax suñ ustaan nee na gexe moom lu war la farata la ndax boko deful melna ni rek ah, doomi do doomi garab buy wadde ci ki boy teud ci lal bi gungu ngay def ñepp de ko deg waaw waye legi nak boko julle mom ah yàlla mën na lay musal de ci yu bari ci guddigi gi ba do ko gis wax deug kon bajjal ñu lay gërëm ñu ngi gërëm itam nak wax dëgg ah sëñ bi ndax wax dëgg yàlla sëñ bi moom itam ku ñu bugg la ndax lii yëpp boo ko gisee lawta ni yomb la te sëñ bi mooy taat bi sëñ bi moom moo moom moo law lii yëpp ba lii yëpp génn si ndax bu ñu xamante wu doon ak sëñ bi toppuñ ko woon xëy na lii yëpp duñ ko doon am waaye na wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla guddal seen fan seddal seen yax yàlla yàggal leen nag ci seen kanam ñu ne ñu leen di dënk suñ bopp rek àddina ak àllaaxira ñu ngi leen koy dënk suñ bopp yàlla nañu yàlla suturaal. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokk yi maa ngi leen nuyu ci seen tur seen sant. di nuyu góor ak jigéen di nuyu ndaw ak mag. rawatina ñun. te cant gi ñu ngi ko dalee ci maire Fatou Diop mii xam ne li ñu wolof Njaay di wax bu loogu lekkee xalam na ko gërëmee cooy kii mbir mi ci moom la fàq ko wala moom moo ñu ko tasaare bañ jot ci gannaaw buñ sante soxna Fatou mi mu sant suñu oustaz bee de Sakho Diop ca cekkeen da ko sant du ko gërëm na mbir mi xattan na ci te dana soññ guddeeg bëccëg wax ji yëpp kàddu gi bi ñu xiboo ne yëpp benn la ndax jigéen ñi xamuñu woon dara fañ daan fëtar fëtar dem seen liggéey rek lañ toppoon ku ci liggéey ba nelaw ba xëy ba xëy fitte ko yaa ngi ci teen ba yaa ngi ci waañ wa rek dafa fata rek xamula ci julli lii xamula ci julli laa te fi ne fi ñee julli bépp farata yàlla sunu si maam boo xam ne ci julli lañ ko war a def ku ñu ko laaj xam génn góor gu ñu ko mën a laaj te waxuñ la ko xam mu ngi defal alxuraan boo doy dañu ko dalalee ci ay kii ay ay xaraf bu ñee alifun baa un gu nii fi ne di cuq cuq dañ alifun baa un dañ ci ji dañ dawal dañ lax dëri fuñ toll ñu ngi fi ne bu ñu leen waxoon fañ dalee ak fañ xem du du ngeen ko gëm sax waaye nag nit ñi wax nañ ci xaquraan bi tuuti man na danaa daye mi ci lax dëri bi ci li ma ci njëkk moos ma xamal leen ci ne ñun ñu ngi xam ñu ni tuuti auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim awlu maa yi jibu njëlbeen li njëkk ala mu kalafati ci mu kalaf tas yu imaam yi dina wéral ngëm su ma maxrofati topp mu xam maa ca la nga xam ne yu lu dana héwénal bii ca moom farataxee ni farataay ji salaati xàttee julli wa ak laab wa ak koor way jibu dana war xaale yi ci mu kolof an yu hafisa mu wattandeku xaala xuddululaay ca dëri yàlla ya way yuqi fa mu taxawal xend rii toppi ndigal wan nëx yu ak bàyyi tere wayu tuubu mu tuub ilalaahi jëm ca yàlla sufaanahu tudd na ma sell xam la xam yastata njëkk muy sàññ xaale yi ci moom njëlbeen li njëkk ji mu kolof mooy wéral ngëmam topp mu xam ci la nga xamni dana xéwénal ci moom farataay mom xàttee julli ak koor ak laab dana war ci mu kalaf mu ko deul yàlla yi mu taxaw top ndigalam baye terem mu tuup jëm ci yàlla tuddu ko ba sel ñak muy sañ ci mom sadaqa wasil alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima أسلم عليكم تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد أشكر جميع القادرين والقادرات وأشكر أمي أمي أمي هي فاطمة جوب أحبها في قلبي جدا وما هي سانت لا نيب نيك نيب ما هي بجل سلمى ديكو سانت باخ دي سانت نيب di gërëm ñëpp man nag taalibe dong laa damay sàkku si yéen ñaan di sàkku si bàjjan mu ñaanal ma maa ngi commencé si buntu jàng pour sàkku si moom daal mu ñaanal ma su ma préparé ma woon wax sax ndax oustaz Seydina moomu fekk si biir mu ne ma naa wax waan su ma préparé woon ay bayit laa lay bindal ay bayit daal laa lay bindal waan xam naa prochainement rek ala si xalaqa fasawaa wala si qadara fahdaa wala si axrajal mar'aa faja'alahu ghusaan ahwaa sanuqri'uka falaa tansaa illaa maa shaa Allaahu innahu ya'lamu jahra wa maa yukhfii wa sayahdika wa sa'uqri'uka fala tadhakkarii sayadhakkaru man yakhshaa wa sayajannabuhaa al-atqaa laa naaran kubraa summa yamuutu fiihaa wa laa yahyaa qad aflaha man tazakkaa fa zakkir isma rabbika fasalli bal tu'thiruuna al-hayaata ad-dunyaa wal-aaxiratu xayrun wa abqaa inna haazaa lafii suufi Ibrahima wa Mose bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabi fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa asal alayhim tayran ababila tarmihim bi jaaratin min sijil فجعل كافر ما كل بسم الله الرحمن الرحيم قل ولا احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كله كفوا احد السلام عليكم man soxna Fatou Sy Cekkeen maa leen di nuyu seen tur ak seen sant di tatagal yaa salmata di ko sant di ko gërëm di gërëm soxna Faat Faat Jóob di di gërëm soxna Faat Jóob di ko sant di ko gërëm ndax xale bu raanee nga ngëf si loxo yi yëkkati teete ko yow yaa ko yaa ko doxloo ñun mënuñu woon dara ñun soxna fa soxna Faat Jóob moo ñu moo ñu teete ndax yaasal moo ko yónni daara yi mu wër ko daara yëpp yëm ñu ko waaw man na sama wax du ci gudd di gërëm saako jóg wax dëgg daara ji fekk na ko muy liggéey ci toolam yi waaye daf koy wëcc buy tamit ñun ñu ngi dugg ci biir néeg yi di jàng dañ koy gërëm di ko sant wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala Bàjjan Salma ñu ngi lay jotli nuyu waa Cekkeen ak mboolem commune Mbëlëb ak mboolem région Kaffrine. ak tund saalam yépp ñu ngi lay jottali seen nuyoo di la jottali nuyoo ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen fi teewal fii muy man ak suma xarit bii ma dendal ñu koy wax Abdul Muttalib ñu gën ko xam ci sappe maam Xalifa fu ma nekk ma moom ñoo fa tolloo waaye fu mu nekkee man ñoo fa tolloo nee nañu ñun waa Saalum ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci lo xamanteni wax kat yi dañ daan wax ba seen waxukaay jeex ñu fàtte ko kat yi dañ daan doxa doxa doxa dox ba sonn romb ko yow nga ñëw maanaa dal ca loola yow jël sa matériel yépp jëmee ko ca ñooña loolu mooy bëgg looy mooy euh, bëgg euh, société bi lépp ndax wal ardu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbi wala si xabusa laa yaxruj illa nakidan kon foofu nga xool jëmee fi sa liggéey ba tax nga ubbil mag ñi daara ngir ñu war cee xamee seen seen seen diina war a mën a war a mën a nekk ku ku ku set war a mën a nekk kuy jaamu yàlla war a mën a war a nekk tamit ku ragal yàlla war a nekk tamit koo xamante ne jàmmum nga dafay tegu ci yoon ndax bëggoon nañ ko waaye amat mënatuñ ko woon amuñ ko woon te mënatuñ ko woon a am feneen te nekk seen dimbal ndax bëgg nañuy ragal yàlla bëgg nañuy jàmm yàlla waaye xamuñ fu ñuy jaar te bu dul loolu duñ duñ dem ndax arab ba dafa waxoon ne diinul islaam yi diinul ilmi wal amali diina islaam diina xam la ak jëf boo xamulee bokku boo jëfulee bokkuloo ba tax na kon loolu bi nga ko préparé jox ko sayil ndaw muy yaatu di dox ñu la ko dox mu yaatu ba agsi ci ñun waa cekkeen kenn ci sa ndaw yi ak si eh, eh, indil na ko ñu ngi lay sant cant goo xamante ne am na fu mu dalee waaye amul fu mu yem lim lim li li li mag ñi booyaloon moom la ñëw di ko booyanti comme la si ndaara ba ne bañ demee na ko école arabe lañ bëgg ci dëkk bi mu ne yéen dangeen ngeen may dimbale da ñuy dimbale ñun si ndaara yi ndax li daara yi booyal gune yi booyal ci mbedd mi ñoom ngeen ñëw di leen ki leen booyantil waaye mag ñu daara yi booyal yow moom nga ñëw dañu boyantil waaye yàlla boyantil bépp mbooya adduna ak mbooyaanam alaxira bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaay ji ñu ngi lay gërëm di la sant si taxawaay gi nga taxaw taxawaay gi nga taxaw nag taxawaay bu jafe-jafe la ci adduna gi mooy taxaw pour nit ñi jàng lu jafe la ndax nit ñi coono bi nga xam ne nekk na ci nit pour nga jàng coono boobu la nit ñi di attanut ci seeni xol dañu ne jamono ji soo seetee jaww ji yépp dañ ko ubbi ay buntu xam-xam tëj ay buntu réer wante soo demee sa xolu doomu aadama yi buntu xam-xam dañ ko fa tëj ubbi fa ay buntu réer loolu nag nañ ko mën a jàngatee mooy nit ñi fi ngay jaar be xam coono googu nga dut bëggut a daj wante nag soo seetee àdduna bi yépp lépp lu fiy dox tey xam-xam moo koy doxal kon suñu yaay ji mbooloo bi ñu ngi leen di jéggal ci wax bi ngeen jéggal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi mel ni ñaari ustaas yu wax yóbbuwaale nañ mbooleem ustaas yépp te it am nañ firnde ne même ustaas yu ñëwut suñ ñëwoon it li ngeen wax rek lañuy wax kon nag gërëm ngeen bàjjan waaye bàjj mi dana leen gërëm ndax junney nit yor nañ matuwaay bëgg ku leen jàngal amuñ waye junay kan ñu ngi fi bëgg ko leen jox dara amuñ ko ba gis nga ñi fi tari nii tari mbetteel la bàjjan waxon na ma ne wax leen daara yi kuy ñew ak sa oustad dana am ñu tari ma ko waaw ci kaw nëbb ko ci suuf ndax suma leen ko waxon ñu préparer ñu fi tari ñepp amul kenn ko xamne wax na la bo boo da nga tari ndax so so leen ko waxon ñu fagaru kon ni lolu manam ban sant yalla léegi it am na si ustaas yoo xam ne